ñeen infraction mais julli ci kaw julli ngeen taxaw di seetaan Macky Sall muy def lu ñoo ko tey te ils sont neexul ba neexul na mais tarixa nekk Sénégal yëpp murit yi ñoo ci ëpp fulla ñoo ci ëpp fulla parce que mbooloo bi ànd ak xalif la woon a ñeseen bu ñu demoon dajji commissariat bi génnee commissaire bi simi tubayam dóor ko bu baax wan leen yéen constitution seen yooyu nga xam ni ñu ko fenn seen yooyu seen police yooyu ñuy wax noonu police beeg gendarmerie beeg jël diine bi di ko ñàkkal fayda di ko def fa te loolu ah fi benn imam taxaw di wax naan day waaraate bu fi kenn waaraate kat taxaw di wax naan day waar kenn kii que ce soit bu fi kenn taxaw di wax ku fii daal ku dul murid yi waroo fay wax dara parce que murid ñoo fi wane seen dëgg leen respecté wax dëgg yàlla man j'ai très mal quoi te dëgg neexul léegi nag ñun càggan gi ñu saggan ñu ba ñoom ñu am sañ di convoqué ay xalifu xalifu ko def ñoo ko def dañu warul mbooloo boobu noonu Sénégal daal ay sénégalais gëmuñu dara man maa ko wax man am naa lu ma trop nag parce que yenn seetaan yi